بسم الله الرحمن الرحيم فقد سما قبلي يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا فاعترضت دون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأرابا ci darsu bi weesu mu امرو القيس nettali imruul qays ak ki nga xam ne ñom ñep fi nga xamne fofu foofu lañ mujjee dalaa waxone ne limi wut bu fekkee amna ko baxna bu fekkee amu ko nag nga xamne musibe bi da ñew continuer ba dé dikkel ko mu ne du def lu muñ metit bobu nga xamne moko dal te woko mu joxoon la ne la mom moom woko fi amna ko kuñ wax imru qaisi ba mu soxla nguur dem ruum don sakku ci ñom ñi dimbali ko pour mu ami nguur dal ci kaw banu asad booru rumba daf ko solal mbubam tooke mu dee ci Ankara ba lam doon wuti mu jéew ko am kon man njëkkeewu ma ko fi mu waroon la tamit ne ki ñu doon wax abul jabri al jawa mu bokkoon ci giir kinda ca yeman moom tamit day demoon na ca kisra mooy buuru fari buuru faris doon sàkku ci moom mu dimbali ko ci ay soldaar ngir mu jotaat réewam jotaat nguur ga mu nguur ga mu yëlifoon gis nga loolo mu jéewu caa jot ñooña dañ koo tooke mu daal di dee ca feebar booba dellu wut yaman ba lam doon wuti amu ko mu waxoon la tamit ne ibnul ashaj ji moom tamit day daa rayoon boppam ginnaaw boo xam ne xeex naag xajjaaj ndaxte xajjaaj moo ko faloon ci araq mu fetteerlu ci kaw xajjaaj ña xeex xeex yu metti ay at mu jigi mu daw dem làqatu ci làqatu ji ca buuru turki ba bi ko xajjaaj yégee neexal buur boobu xaalis bu bari buur ba daal di koy jébbal ndawi xajjaaj ya ñooñu bañ koy yóbbu ci xajjaaj ba ci yoon bi fekk am na kuñ ko boole loon takk ca guddi ga mu yee ko ne ko jugal gunge ma ma tuuri ndox ndaxte ñoom ñaan lañ boole woon takk ba mu demee ba ca kaw terrasse ba rek mu dal di daanu ànd ak kiñ ko takkaloon ñoom ñaar ñi faatu lam doon bañ mooy xajjaaj wala ay noonam ne ndokk waaw kon mu rey boppam far mu ne ibnul ashaj ji moomu lam doon wuti te moo doon nguur ak kawe mu jow ca jot te dee ñëwal na ko te kooku moom mu jiitu woon mu waxoon la tamit ni ki ñuy wax Hajjaaj muy Juzaymat ibnu Malik muy eh, muy kii muy ñi koy wax Juzaymatul Abrash wala Juzaymat ibnu Malik wala Waddah yooyu yëpp dañ ko koy wooye mu ne kooku tamit da doon wuti nguur ngir nguur gu yaatu ndaxte amoon na nguur waaye nguuram yaatu ta moo rayoon bàyyi zaba zaba ndaw lu jigéen loolu yoroon nguur ndaxte ci jamonoy muluku tawaayif ginnaaw boo xam ne Zulqarnayni daaneel na nguuru Faris nga xam ne nguur googu ñoom dañoo yàgg nekk ci nguur waa Faris Zulqarnayni bokkut ak Zulqarnayni bi alquran di jàngale ñëw daaneel nguuru Faris bi mu daaneele nguuru Faris buur yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu yëpp mu yilif nguur yooyu noonu loolu lañ doon tuddee mu mulooku tawaayif bi mu daaneele dëkk yooyu yëpp yilif leen dafa dem gis benn sëriñ bu ñuy tuddee Artatalis dañuy wax ne kooku mooy ki njëkk jàngale xam-xamu mantiq Artatalis mu laaj ko léegi nan lay doxalee mu ne ko. boo bëggee mucc ci ñoom comme nguur yi dañoo bari léegi fu nekk da fay far fal ab buur bàyyi zaba nag daa bokkoon ci buur yooyu ñu faloon léegi nag euh, Juzayma daal di rey bàyyi zaba zaba doon nguuru baayam googa euh, comme zaba bëgg naa fay baayam ji ñu rayoon mu ne léegi dafay mu bindab leetar kii nga xam ni mooy euh, Juzaymatum Juzaymatum nu Malik mu bind ko leetar Euh, ne ko léegi daa bëgg mu takk ko comme soxna euh, te bu boobaa ku takk soxna xam ne ne mooy yilifaale nguuru soxna soosa parce que moo ko yilif ndeke loolu am pexe la mu zaba tegoon bi nga xam ne ni ma waxtaan naag ay nitam xasir daal di bañ comme niñ ko nettale woon mujjee gi mu topp la nga xam ne moom la ko ñeneen ñi wax bañ a déggal xasir mu dem ñi daal di koy rey mu ne nag Juzaymatum nu Malik boobu lam doon wuti amu ko te mujjé nañ ko ray kon man limay wuti bu ma amul tamit jitouma ci lolou lay wax léegi nak mu continuer di wax ne faqat sama qabli yazidun taliban shawal ula fama waha wala wana faqat sama yekati ko won qabli jek sama yazid ku ñuy wax yazid ibn muhallab taliban di aji sàkku sha'wa ula lefam kawe fama waha dootut ca wala wana ta yokkutut ca fa'taradat dal di koy galan fa'taradat dal di koy galan alluhay munjuma al uraba bay aji tartik jommale duuna ledi walis la nga xam ne raama sàkk woon na ko waqat jaddata taroon na bii ci moom aljiddu farlu ga mu ne ku ñëw Yazid ibn Muhallab bokkoon ci banu Umayyata nekkoon fa chef d'état-major ci jamono Abdou Malik ibn Marwan euh, ba mu demee ba ci ab jamono daa gis ne moom daa bëgg wuti nguuru boppam moom tamit maanaam daa fetteerlu ci kaw Abdou Malik ibn Marwan euh, ci la kenn ci banu umaya dal di koy xaar ba mu wet génn mu dal di koy bett dal di koy yongaan rey ko moom lay wax ne yasid ibnu mahalab boobu bëggoon kawe moom tamit lam doon wuti amu ko ba benn njuuma njuuma googu lim ci namm mooy dee moo ko mujj rey te mooy kenn ku bokkoon ci banu azet banu banu banu umaya te moo ko bett ci bërëb bu wet dal di koy rey ba lat te loolu mooy dee gi nga xam ne ni moo ko mooy njuuma bi ko teree yegg fa mu bëggoon moo tax mu ne faqat sama yëkkati ko woon na qabli njëkk sama yazidun yazid taaliban daa ji sàkku chawal kawe fa maa waxaa dooxatut wala wanaata yoqatu ca faatarada daal di koy galan mooy daal di koy gàllankoor al luhay mu njuuma faatarada daal di koy gàllankoor al luhay mu njuuma al uraba ba ji tarcik jommale duna ledi walis la nga xam ne raama sàkkoon na ko waqat jaddata taroon na bii ku ci amoon la ca hal ana bidun min araanina uda jaara alayhim sarfu dahrin wa atada فإن أنا لتني المقادير الذي أكيده لم آل في ربثاء من هل أنا نخمن بدع ما أجنجك من عرانين التكيك السنغية علا وإيه ويكويا عرانين جمع لتي عرنين عرنين موي بكر دكت دانيو اللي تاني تدوك بكر موي لو يكتكو تي كنم جي بكر ندوم عرام ولا بكر مو غنى يكتكو مو دانيو عرنين لغنى كي غنى يكتكو تي أو نيرك نيني كوكو دي عرنين نون أنا دا يكتكو من اللي بكر موي أشراف القوم أشراف القومي moo tax mu ne xalaana ndax man bidi on maa aji njëkkee min araani ne tukkee ca sang ya ulaa yay way kawe jaara nga xam ne jéng na alayhim ci seen kaw sarfu dëhrin soppalikook jamono wa atada jalgati mu ne ndax man maay ndax man maay ki fi njëkkee bokk ci nit ñu baax ña ca sang ya nga xam ne ni jamono daa jalgati seen kaw déedéet ndaxte ñim tudd ñëpp ñooyu ñoo ko jiitu woon te ay sang lañu woon te jamono jalgati na seen kaw mu ne nag fa in anaan lat bu ma mayee almaqaadiru dogal yi mooy dogal yàlla yi alladi li nga xam ne akiidu maa ngi koy fexe lam aalu duma gàttañ lu fii bi saa ci réparé wala ci yewenal yàqu-yàqu yi as saa mooy alfasad mooy yàqu-yàqu yi mu ne nag li may wut bu fekkee dogali borom bi may na ma ko mooy jot naa ci lu ko ndey li fi yàqu woon yëpp danaa ko defar waqad sama amrun ila awtaarihi faxtatta minha kullu aali lmustama fastanzala zabaa qasran wa hiya min uqaabi looxi ljawi ala muntama mu ne waqad sama yëkkati ko woon na amrun ku ñuy wax ilaa awtaar yi jëm ci fayeeku deretam jamalo ci watr faxtatta mu sippeeku min ha tukkee ci moom kullu aalil mustama bépp aji yëkkatiku ci yëkkatikuwaay fastanzala mu daal di sàkkoo wàcce azzaba ndaw sa ñuy wax zaba wahiyata moom zaba ci notel azzaba ndaw sa ñuy wax ci notel wahiyata moom zaba ala muntama moo gën a yëkkatiku ci eh, lu ñu kawel min uqaabi luuxil jawwi tukkee ci xoobi àlliwaay jaww ji wala alaamun tamaa moo gën a yëkkatiku ci yëkkatiku waay min oqaabi looxil jawwi tukkee ci xobi àll waay jaww ji mu ne ku ñuy wa amr moom da jógoon na dem di fayeeku ay deretam euh, mu daal di toog ci nguur goo xamante ne ni ci place bu kawe nga xam ci place bu kawe la mu ne zaba mi nga xam ne nii nag moom moo gënoon a kawe sax xoobi jaww ji luux luuxul jaww ji mu ngi ci nam rek jaww ji mu zaba mi nga xam ne moo kawe xoobi jaww ji njanaaw yi naaw ci kaw jaww ji nga xam ne dañuy kawe mu ne kooku sax zaba moo leen gënoon a yëkkatiku te zaba moom mujj nañ ko wàccee daal di koy not dal ci kawam daal di koy daal daal di jël nguuram amru boobu muy wax moo doon jarbaatu juzaymatul juzaymatum nu malik maanaam juzaymatul abras ginnaaw boo xam ne zaba rey na juzayma ci ginnaaw bum mu ko labatee xasir euh, xam nga moom waxoon nañ ne dafa rëccoon ci la xasir dem gis amr ne ko yow amr amr ibn rabiata la tuddoon euh, sa déreeti nijaay ji lan moo tax doo ko fayeeku zaba rey na sa nijaay nga toog ndaxte jigéenab zab jigéenab Juzayma moo doon moo doon moo doon yaayu kii di amr kon amr jar amru jarbaatu Juzayma la mu ne ko sa déreeti nijaay ji lu tax doo ko fay doo ko fayeeku mu ne ko man aw ma kattan ci dal ci kaw zaba nga xam ne mu ngi am pale boo xam ne man mënu ma faa yegg tata jim yor man mënu ma faa yegg xasin na ko man mën naa laa tëralal pexe damay dóor sama bopp gaañ sama yaram dagg sama xar kanam léegi nag mu daal di def loolu tëral pexeem gaañ boppam dem ci zaba ne ko gis nga li ma amru def nee na man maay sabab bi tax nga rey nijaayam ndaxte man maa la man maa ko indi maanaam man maa def pexe daal yi tax ba nijaayam de looloo tax mu mere ma def ma nii bi mu waxee loolu zaba daal di koy yërëm daal di koy fat làq ko wàccee ko wàccuwaay bu kawe ci moom dem sax ba wóolu ko di ko jox alal muy dem Araq di commerce ji ndaxte mu dem mu dem Araq di commerce ji ginnaaw bu mu ko wóoloo euh, ndeke loolu am pexe la mu xasir defoon bu ñëwee Araq nag day jaar ci amr amr daal di koy jox xaalis bu tol ni la ko Zaba joxoon wala lu ko ëpp maanaam daal dana ko ci yokkal alal ngir bénéfice am gën a bëri ndaxte loolu day tax Zaba daal di koy gën a wóolu bu fekkee dañ laa jox masalan ab ab ab euh, ab xaalis yow ak say morom ngeen tollale yow nga dem commerce ba ngay ñëw nga ëpp leen li nga gañe foofu chaque ne ki leen ki leen jox marchandise mi yow lay gën a wóolu léegi ñiy def noonu di def noonu moog ambre ba buur bi gën koo sopp loolu wóolu ko benn ci voyage am yi nag mooy benn ci tukkeem yooyu ñu daan def di commerce ji ci arab mu jënd préparé nañ moog ambre jël ay carton yu rëy daal di koy defar jël ko sëf ko ci kaw gëlëm yi carton gu nekk nag ndeke ab soldaar mu nga fa bu yor ay ngànnaayam ci la amru daal di jiitu fekk jaaruñ sax yoon bi ñu daan jaar guddi gi la ñuy dox bëccëg gi ñu noppalu ci la amru jiitu nag ñëw ci zaba ne ko kaay ñi yéeg ca kaw terrasse ba ca kaw ja ñi yéeg mu daal di koy joxoñ ne ko xoolal euh, gëlëm yee ngay gis yëpp sëf yéenee ñi yëpp di ñëw ay marchandise la ci sa xaalis bi ma joxoon ci laa la ko jëndale zaba nag ku ñëw la woon mu xool ko ba mu yàgg mbir mi xaw naa tey xelam ci la doon wax waxam jenaan maalil jimaali mashyuha wa أجندلا يحملنا أم حديدا أم سرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا mu ne gëlëm yi day seen dox yéex na lool ma ndax ay doj lañ yenu wala weñ lañ yenu sax wala sàngara su sedd wala ay góor ñoo fa boof daal di fay toog gis nga loolu mu ngi doon xalaat lan la gëlëm yee war a yeb daal xel mi di ko jox na est-ce que du ay soldat waaye xasir daal di koy dalal rek mujj gi mu daal di jàppale xasir wax ci la gëlëm yi ñëw ba ci tata ji ba ci lañ ñëw ba dugg ci fi Zaba nekk mooy ba ñuy ñëw ba ci pale bi mooy tata ji ci la am ab soldar ci garde corps Zaba yi jam comme xawoon naa wóoluwaa moom tamit jam carton yi kenn dal di gaañ benn soldar ci la kooku daal di génn soldaar yi daal di koy attaque rey mooy ñi nga xam góor ñi nga xam ne ñoo àndoon ak xasir daal di génn ci carton gi rey gardien bi nga xam ne moo nekkoon ci tataja ña fa nekkoon ñëpp daal di leen song dal seen kaw commencé leen a faagaagal ci la Zaba daal di yëg daw moom tamit fekk lu jiitu loolu Zaba laajte woon na ñi melalal ko kan Asir nan maanaam ñi melalal ko Amr ba bëgg wax ñi melalal ko Amr nan la mel bu toogee nan lay mel bu tëddee bu taxawee ci anam bu mu ko mën a gisee rek nga xam ne dana ko xàmme euh, ba mujj gi fu mu mën a gis Zaba rek moom dana ko xam fu mu mën a gis Amr rek Zaba dina ko xàmmee bu baax fekk Asir moom tamit. leeraloon na euh, amre ne ko zaba bu tiitee ak bu jàqee am na am xuntu maanaam am pax foo xam ne ni fa lay jaar mu aw yoon wu sew boo xam ne fa lay dem làqatu ji li ñuy tuddee nga xam ne euh, palais bu nekk daf koy am nga xam ne sous terrain lay doon léegi nag zaba bi bi nga xam ne ni ñoom amru ñëw na mu daw dem ne day làqatu ji ca pax moomu fekk amru moom tamit dem na jubali foofa di ko fa xaar xam na ne foofa lay daw jëm si ba mu ñëwee ba jàkkaarloog moom rek moom saba xàmmee na Amr ndaxte melaloon nañ ko ko ba xam ko ci la gaawantu am na jaaro bu mu yore woon jaarob tooke mu daal di koy sex ne bi yeddi laa bi yeddi ko yaa Amr yow de doo ma rey du ci sa loxo laay dee waaye ci sama loxo moo may rey waaye du yow Amr euh, ci la Amr daal di fayeku deretam jël nguur ga nga xam ne moom la Zaba yore woon xam nga bañ doon rey Juzayma Zaba nee na woon leen na ngeen fexe ba deretam du tuuru ci suuf si ndaxte ñoom dañoo gëmoon ne. booy rey nit deret ji bu laalee suuf rek lu mu yàgg-yàgg kenn ci ay mbokkam dana fayee ko deretam loolu ñoom dañ ko gëmoon euh, kon mu ne kii de amru tamit moo ma jiitu woon ci li nga xam ne nii moo doon am yitte ci fayee ko ay dereti mbokkam te ku ci farlu woon la te kam doon dalanteel nit ku kawe la woon ba nga xam ne xoobi jaww ji sax moo leen féete woon kaw waaye loolo taxut kii de amru ñàkk yitte ci ay bëgg-bëggam mu ne wa sayfun istaalat bihi himmatuhu xataa rama abada shawil murtama mu ne wa sayfun ku ñuy wax sayfum nu zi yazan istaalat kawe woon na bii ci moom himmatuhu yitteem istaalat kaweeloon na bii ci moom himmatuhu yitteem xataa bam sànneeku abada shawil murtama gën ca sori ci lefam sànneeku waay fa jarraa muy guuxal al uxbuusha buuru Éthiopie su man tooke naaqiyaan gay aji dagg mooy gay aji sax waxtal la mu sipeeku min rimdaana ca rimdaan mexraaba duma bërëbu estatia place su statue rimdaan mooy bar mooy bërëb ba noonu la tuddoon fa nga xam ne ay statue dañ faa nekkoon adduma jamono ci addum yetu même doomu tubaab yi ñu yor sax dañ koy tuddee addum ya muy statue rek. mu ne ku ñu wax Sayf ibn Zi Yazid tamit ku amoon yitte la euh, yitteem yóbbu woon na ko ci mu saku bërëb maanaam mu sàkku sàkkuwaay yu kawe yoo xam ne ni yu yu yëkkatiku la ndaxte Sayf ibn Zi Yazid dafa bokkoon ci néega buur ca Yaman waaye bi nga xam ne ne Éthiopie mu ngi nekk ci Afrique ci frontière Afrique Yaman tamit nekk ci Asie ci frontière asi kon ñaar dëkk yooyu dañoo dendoon léegi nag Abraha Abraha bi muy songi Kaaba gi te ñoom ñoo daloon noot buur yooyu nga xam ne ñoo nekkoon Yaman jël seen nguur ga bi nga xam ne Abraha na dem na di toji Kaaba ga te suñ borom faagaagal ko bu mu faatoo ci la doomam Masruq ibn Abraha daal di jël nguur ga nga xam ne moom la bàyyam yilifoon yilifaale waa Yaman yooyu noonu sayfu nag bi mu gisee mbir yi mu ne daal toog ñi lay noot say suufu baay say suufu maam loolu daal bokkul ci bokkul ci farlu bokkul ci góor ci la laxas dem ci buur yi nga xam ne ni jàpp na ne am nañ doole mu leen di sàkku ndimbal ci la njëkkee woon dem ci buuru ki nga xam ne ni mooy Ruum muy Qaysar mu sàkku ci moom ndimbal pour mu dimbali ko ci waa Éthiopie nga xam ne ñoo ñëw noot nguuru nguuru nguuru nguuru ay baayam ak nguuru maamam te xam nga ne waa Rome ñoom ak Éthiopie ñoo bokkoon benn benn diine bu ñu nekkoon léegi nag ci la buuru Rome bi muy Qaysar ay nitam ne ko yow kii nii jugee Yaman bokku leen diine te waa Éthiopie yële yéen a bokk diine kon waa waa Rome ñoom ñoo doon jàppale waa Éthiopie yooyu noonu léegi nag kooku téye ko foofu joxut ko ay soldats yi ko doon sàkku ba mu yàgg ci la Seyf daal dafay jógee dem fële nga xam ne mooy Faris ca buuru mooy Kisra Kisra di buuru Faris mu wax ko moom tamit li nga xam ne mooy yitteem bi mu ko waxee loolu ci la woo ay soldaaram moom tamit mooy ay gouvernement am beeg ñi muy diisoon laaj leen li nga xamante ne nii moom la moom la Sayf ibn Yazid di wut lan lañ ci xam ñu ne ko ah yow kii nga xamante ne nii réewam yee dara amu fa réewu arab yi tàng na sori na te réew yi ñàkk la moom tamit mu gis ne daal kon ñàkk koo jox ay soldaar mooy li gën mu yëkkati xaalis bu bari daal di koy jox sey seefu bi mu génnee ba ci bunt bi mu daal di jël xaalis boobu tasaare ko ci ñi nekkoon ci buntu pale bi bi ñooñu gisee loolu dama wax buur bi li nga xam ne moom la seefu def mu daal di koy wooluwaat mu ñëw mu ne ko yow xaalis bi nii nga xam ne dama la ko jox pour nga dimbandikoo ko ci sa xare boobu nga xam ne waa Éthiopie ñoo la noot lan moo tax nga tasaare ko mu ne ko man lan laay doyee xaalis suñ dëkk bee suñ suuf see nga xam ne xoor xaalis kese la ñun liñ soxla mooy ndimbal ci wàllu soldaar du xaalis li tax nag Seyfu def loolu xemem loo buur bi suuf sa la ndaxte bu ne ko ñun suñu suuf lii di wurus ak xaalis dañ ko faa am ba doyal ko ñu xaalis loolu buur bi xelam dana dana dana dana ko soppaloo suufam soosu noonu bi mu ko waxee loolu nag buur bi tamit xelam dem ci li ko Seyfu daal di wax mu waxtaan ak ay nitam ni ñi ne ko daal li gën mooy ñàkk koo def ndaxte dëkku arab yi nangam ak i nangam mu xalaat mu gi mu ne na jël ñi nga xam ne ñooy prisonnier nekk ci kaso yi mu daal di leen génne ñu yóbbu leen nga xam ne buñ demee buñ gañee nguur baax na buñ gañewul nguur ga te buñ leen reyee ñi xam ne ñooñu ay prisonniers rek lañ woon léegi nag bi ñuy dem ñu jël ay gaal fekk waxoon na leen bu ngeen demee ba xeex ba jot ca nguur ga na ngeen laajte ndax li Sayf Sayf ibn Yazid wax dëgg la wala du dëgg bu fekkee la mu wax dëgg la bu ngeen xeexee ba gañee na ngeen ko fal bu fekkee la mu wax bu ngeen laajee nit ñi nee nañ du dëgg nangeen ngeen ko rey moom ngeen daal di may bind ma wax leen nan ngeen doxale doxalee léegi nag ñu daal di départ bi ñu demee ba ci yoon bi am na sax gaal yi jotoonoo dagg ci frontière bi waaye góorgóorlu nañ ba fexe ba yegg boobu noonu léegi nag fi nga xam ne mooy daan nekk ca capitalu Yaman mooy Sanaaul Yaman mooy capitalu Yaman ba jamono ji Rimdaan foofu la nekkoon ñi daal di rey buuru Éthiopie ba rey ñim àndaloon jël nguur ga nag teg ci loxo laaj waa dëkk ba waa Yaman ne leen Sayf ibn Yazid ndax lii mu wax ne ay maamam ak i baayam ñoom moomoon nguur gi dëgg wala du dëgg ñoom ñëpp ñi daal di koy dëggal jàppale Sayf ibn Yazid même bi ñuy xeex sax waa Yaman yi àndoon nañoo moom xeexle ko ba nanguwaat nguur ga léegi nag ci lañ jébbal nguur googu kii di Sayf ibn Yazid mu ne Sayf ibn Ziyazin boobu yitteem kawe woon na lool ba mujj buuru Éthiopie bi nga xam ne moo leen notoon mujj nañ ko rey moom tamit mu daal di wàccaat ca bërëbu ay maama ki baayam nga xam ne fa la fa la place statue nekk moo tax mu ne wa Sayfun Sayf ibn Ziyazin istaalat kawe woon na bii ci moom himmatu yitteem xataa rama bam sànnee ko abada shawil murtama gën caa sori ci lefam sànnee ko waay fa jarraamu guuxal al uxbuusha buuru Éthiopie ba su man tooke naaqaan gay aji sax mooy gay aji dagg waxtal la mu sippeeku mooy mu occupé min rimdaana ci bërëb bu ñuy wax rimdaan nekk ci sanaawul yaman mihrab duma bërëbu statia place statia mihrab comme ni nga ko xamee dañ koy wax mooy bërëb bi gën a sell ci ci kër gi rek wala ci ab place fi ci gën a sell moo tax juma fi imam bi di nekk ñu koy tuddee mihrab mu ne summa ibnu hindin basharat niraanuhu yowma uwaaratin tamiman bi sola mu ne summa ibnu hindin topp ku ñëw ibnu hind basharat jonjoona niraanuhu safaraam wa yowma uwaaratin bisab uwaaraat tamiman gir tamim bi sala ci njaar la sala moy safara moy tak takalu safara sala mom la yalla di wax ci alquran nan tabbad yada bi lahabin wa tabba ma aghna anhu maaluhu ma kasab sayasla sayasla naran moy dana jaru ci safara mune ibnu hind mom tamit am wa ci bis bu ñi wax bisu uwarat ab bis la ci bisu Arabi. gir giir ga wax gir tamim de jaral na len ci safara sa ndaxte amru ibnu hindin da, amon ben mbokam bu nampi ci gir tamim ba mu fa demee nag benn bés dañ ko faa yóbboon xam nga arabe dañ daan jël seen doom yóbbu ko dem nampi feneen mbokkam moomu nag bañ ko yóbboo ci giir tamit mu namp fa ab bés daa génn doon rëbbi far rey gëlëm ak jàmbur gëlëm googu nag ba mu ko reyee borom daal di ñëw moom tamit mer lool tax mu rey mbokkam amru amru bnu hindin boobu noonu amru bnu hindin nag ne moom dana fayu mbokkam moomu ñu rey ne dana rey téeméeri gëlëm ci téeméeri nit ci ñoom maanaam mbokkam moomu ñu rey ngir ne rek dafa rey ak gëlëm ñi daal di ko rek mu ne moom tamit dana rey téeméeri gëlëm ci giir tamit mu commencé nag dal seen kaw di leen rey di leen rey ba mu yàgg ñu ne ah lii buñ ko seetaanee danañu jeexal ñi waxtaan ñu ne nañ tànn téeméer ci ñoom pour mu mën a matal niseram jooju noonu ci lañ waxtaan mu ne léegi nañ ko tànnal waxambaane yi ñu nekk ci dëkk bi euh, borom doole yeeg yooyu ñi tànn tànn ba ñu am quatre vingt muy téeméer bu manqué benn mu yóbbu leen ci àll ba gas pax mu xóot taal safara wu bari wu yànji di leen ca sànni ñuy lakk di ñor comme safar di ñor comme ni ñuy lakkee yàpp euh, ci noonu rek am benn waay ba tukki woon moom bokk ci banu tamit moom tamit parce que mu ngi bokk ci euh, baraajim te baraajim ak giir la moom tamit gu bokk ci giir tamit bi mu tukkee ba gis safara yi mu ne ah léegi daaw safara te am na yàpp wu may xëñ amaat na ak bernde ndaxte arab yi dañ daan def loolu ñu tabe ñi amaat na ñuy berndeel di lakk yàpp ñoo fa nekk mu dem ba ca safara woo fekk fa fekk fa amru bnu hindin mu laaj ko amru bnu hindin ne ko yow foo foo jógee mu ne ko ban giir nga bokk mu ne ko man maa ngi bokk giir barajim ci la waxoon ne inna shaqiya waafidul barajim ki texeat yi ki torox mooy ku bokk giir barajim ndaxte giir barajim ci banu tamim la bokk mu daal di koy jël sànni ca biir safaroo mottali téeméeram ba loolu lay wax ne su moom nu indin topp uh, ibnu hindin te mooy amru bnu hindin basharat jonjoona niiraanu safaraam wa yowma uwaaraatin ca bisu uwaaraat tamiman giir tamim bi salaa ca njaar la mooy ca safara wa dugal na leen fa ma tanna lii yasun yunaaji himmati illa tahaddaahu rajaun faktama ma tanna gaarut lii ñaan ma yasun naagu yunaaji buy deeyaale himmati sama yitte illa tahaddaahu ludul bu jublu na ko rajaun yaakaar faktama mu daal di nëbbu mu ne man naagu mosul ñëw jaxase jaxasoo ak sama yitte maanaam di ma jax-jaxal maanaam commencé ma naaguloo may dellu ginnaaw maanaam naagu mosuta ñëw song yitte ji ma am ludul ne rek yaakaar dana ñëwaat puus naagu googu mu dem yaakaar gi daal dafay nekkaat moo tax mu ne maatan na lii ñeel ma yasu naagu yunaaji di deyaale yimmati sama yitte illaa taxaddaaw lu dul bu jublul na ko rajaawun yaakaar fakta faktamaa mu nëbbu xam nga nit léeg-léeg dana am yitte ci dara ba mu yàgg mu dem ba mu yàgg mu naaguwaat xaw a def ndànk xaw a tayal ci mbir yi daal waaye bu dee borom dogu da nga gis ne yooyu luy gaar doomu aadama la parce que mbir la yoo xamante ne ni maanaam chey aadi mbir la yu naturel yuy gaar doomu aadama waaye bu fekkee borom yitte la da yaakaar ga ci saasi rek day ñëw puusaat loola mu daal di dem mu ne nag moom heure bu naagu ñëwaan ak jax-jaxal dal di sikki sàkkat tabbi ci xelam dugg ci ay yitteem rek da ngay gis ci saasi yaakaar gam amoon ak dogu gam amoon day ñëw puus naagu googu mu dem kon mun na ñëmal foofu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam